salaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Caajaay yëpp di nuyu jeunes yi nga xamante ne nii aussi ñëw nañu wuyu si euh, vraiment di leen di encourager ci xeex bi nga xamante ni nii moom la ñu bëgg a xeex mooy terrain central bii nga xamante ni nii depuis ñu nekk xale ba léegi xamuñu fenn fudul dul fii du AS benn ASC mais ASC Caajaay yëpp a fi jaar monsieur le maire ci boppam Amadou Youm barke démb la fi jógee ci benn mémorial chaque année dafay ñëw te bu ñëwee fii ñi moom fi lay gaare oto ay naataangoom tamit fi la ñuy gaare seeni oto donc tey bu ñu jëlee terrain bi tasaare ko dafay compliqué euh, point de presse bi looloo taxoon ñu woote ko pour maire ci boppam bàyyi xel ci tabax yi nga xamante ni nii ñu ngi koy tabax ci booru terrain bi. bon jotuñu gisante ak moom mais am na koo xamante ni nii ci ñun suñu ñoñ la jot na gisante ak moom ba maire ne ko am na projet boo xamante ni nii moom la bëgg pour terrain bi te dama yaakaar ne moom bu ñu waxee projet bi nee nañ ko maire ci boppam bu fekkente ne yow la bëgg a nax ñun mënuñu nax parce que projet boobu mu ne moom la bëgg a def pour terrain bi. tant que terrain bi ñu ngi tabax ci alentour yi projet boobu noonu munu am parce que projet bi mu présenté ñun gis nañ ko xam nañ ko te tant que terrain bi jël nañ alentour yëpp tabax ko loolu moom ay naxee mbaay la gëmuñ bon terrain bi mën nañ ne titre foncier la parce que terrain boo xamante ne nii depuis mille neuf cent quarante cinq wala mille neuf cent cinquante fi la ñuy fubalee nawetaan ñu bañ ko bu tuddee ko terrain central ASC Thiadiaye yëpp waxuma la ASC Thiadiaye yi sax mais yeneen ASC yi ñëw fii nga leen di recevoir boobu stade amul Thiadiaye bi Nous de ba aussi ñu terrain bi. mais nous ñu nous euh, te sonal ñu nous li nga ni suñuy nous ak parce que on Nous ñi fi nous c'est Nous ci football Nous na ñi fi ne football donc nous li nous Nous nous suñuy Nous ak suñuy ni seni football nañ fi seni football football rek nous ñu ci bon solution dina parce que maire moom ci boppam xam na ne tabax yii du lu jaadu kon solution dina am moom ci boppam bu seetaanee lii dina xam ne ñun ñii ñoo ne ci dëkk parce que fii nii fii nii ñu bëgg a tax fii mbedd la boo ko fattee boo tabaxee yaa ngi tabax ci biir terrain bi kon am na loo xam ne rafetul jaaduwul xel sax nangu ko ñoom seeni xel bu ko nangoo ba war koo def xel lii nii ku fi jaar même boo dee gan ñëw ci dëkk bi boo xoolee di nga xam ne lii xel nangu ko kon woote bi ñuy woote mooy jeunesse Thiadiaye nañu booloo mànkoo nekk pour ñu sàmm lii nga xamante ne nii pour suñuy set la comme xeex bi yemul fii ñoom lu ñu ci bañul ñun bañuñ ko ci waaw ñun dina wut ay pneu dinañ wut ay pneu samp ko dinañ wut ay pneu samp ko li ñu maire délimité ñun dinañ ko jël mais leneen lu fi keneen tabax ba laal suñuy pneu loo fi def tamit ñu laal la rek mu jeex tàkk. li may wax nag moom le maire laa koy lancé direct mu dégg ko dañ koy ñaan ay ay ay doom ay sërëm ñoo koy ñaan mu sàmmal ñu terrain bi aar ñu terrain bi amuñu lu terrain central bii. caay boo xoolee ba mu daj benn terrain moo fi am bul boo xamante mën nañu di fi daje kon amuñu lañ ñaan nga sàmmul terrain bi sàmmal nag li wër terrain bi parce que sàmm bi rek doyut dañu bëgg nga sàmmal li bi parce que tey boo xoolee maire sax guddi ñu di entraînement fi terrain bi kon lii bu ñu ko fàttee tey mbaa ñu dog ay kër amatuñ fu ñu jëm ñu jot a am as néew di ci konkoral nga bëgg ko di ko wàññi di ko daggat daggat dafa ñaaw dafa rafetut kon nag li ñu a wax muy ki nga xam te ni moom lañ dénk fii caajaay muy Omar Youm ndax bi voté jotee voté ko mu gagné bu xaw ma yëg na xaw ma yëgul waaye habilité ndax moom ab sàmm la dañ ko